man Cheikh Ndiaye la tudd waaw lak lak mom ban heure lañ len signalé lak lak be man bi muy lakk fekkewum ko ndax man NR 10 la fi joge dem di julli ji sama moto fi la koy gaar fofu la taale sama moto ma dem booba gisuma fi len luy tak moy mm, NR 10 la fi déparé ma dem be ma jullee ba paré lañ ma woné ma fi mo ngi lak ci la départ del sur sama moto ba nga ma sanni fele sax ak ci wut ak siwu maag moom fii waaye fii li fi Lak mom ken mun la wax naka la ak nak ndax demb rek rek rek wacc nañ bal ay ay bal ba ba magasin bi fees kon buñ ko xayma xaalis bu beure na ëpp na ëpp na kenn xayma gi mom pou la ko bëgg wax fimné ni parce que magasin bi dafa fess té bal yi bal yu ki rek la waaw mu nek tam lak bu metti parce que gis yaay bu metti bu metti metti metti metti fi ni li fi ne ci marchandise ken mën la wax num toll li fi ne ci bal ken mën la wax num toll waaw fii la fi ci xaalis kenn mënu koo xayma. lakk-lakk yi day faral di am fii si marché bi. na fee am nag waaw waaw. waaye nak fi ne ba legi man xamaguma lak ge fan la joge man daañ ma woné ma manga man bu may ñew sax ma nga daw man ma yor manga magasin bi dama ñewon pour manga magasin bi bama ñewé fele la laa sama moto bi daw ñew fekk de nga nak dajje nañu ki bi ba commencé fay mais man fekkewu ma ko wa li ngay gis ni yépp yakuna takna ci ne mom amatu ci ben yakar ci li wa borom nak asgor la ku bax la ku am yermande ci doom adamay la waaw ki ko as gor la ku bax la ku am yermande ci doomu adama la waaw loolu moom dana maa koy seereel moom waaw waaw Magay Mbeng laa tudd borom magasin bi sama rakk la wax dëgg yàlla di ko kenn waaye nag jàmm pexem yàlla ak dogalam wax dëgg yàlla lii tedd si si kenn mënu laa wax nu mu kenn mënu laa wax nu mu waaye nag jaam day nangu dogal te nangu na ko wax dëgg yàlla sa jumaaja lañu ñu fekk ñun sa jumaaja la ñu fekk waaye fii li fi yàqu kenn mënu laa wax nu mu toll kenn mënu laa wax nu mu toll parce que bal bi fi gën a yomb tey si tey bi fi gën a yomb lu mu boni boni soixante-quinze millions waaw kon te bal démb démb démb rek am na bagage bu yàqu da am na bagage bu wàcc kon magasin bi feesoon dell yàlla defee nii yàlla nay njiglaayam yàlla nay ak ubbekaayam euh, si si si addinaam mu jaay nam yokk ba nga xamante ne danañ fàtte lii wax dëgg yàlla kuy asi gor di jëflante moom xam nga ne lii naqari na la kuy asi gor laa wax tey jëflante moom xam nga ne lii naqari na la boo jëflante wut moom tamit lii naqari na la ah marché bi wax dëgg yàlla kenn mënut a wax li fi nekk parce que tey si tey normalement oto bi dafa waral ñëw ba fii mais mënut a ñëw ndax ni mu demee la kon daal liñ bëgg moo di ne yàlla mi nga xamante ne ñun ñaan lan mën yalla mi nga xamante moy moy moy wutal lenen yalla nako yalla wutal lenen lu gën li bi jaay nabil mustafa ci barke ba ajuma ji ñu julli ba pare ñing koy ñaan yalla na ko yàlla def jërë ngeen jëf tur bi naka la Modou jeng Modou jeng wa Modou jeng ah jeng ah ok tay ñu gis tiis bi ni mu dal lak lakk ko non man léegi laa ko yëg sax man léegi laa lan ma woon ma lakk na man yëguma ko woon sax léegi laa ko dog rek ko wax ko waaw mu doon lu métti waaw métti na waaye xëy na moo gën la yàlla def moom kenn mu ci dara yàlla lu mu def xëy na loolaa gën la def ko lu tax mu def ko moo na ma rey tëra mu lakk na bagage bagage maa ko liggéeyoon yàlla mën naa def mën naa liggéeyoon bagage waaw bagage yi moom euh, buñ ko xayma ñaata lay war a doon ci lañ ci perte ni tey li ëpp na millions ah ndax démb rek yi ma ëpp na millions te li fi nekk ëpp na waaw daa am na yoo xam ne ay mille la jot mille mille ëpp na millions daal li fi lekk waaw mu doon làkk bu métti parce que gis ma alhamdulilah gannaaw kenn gaañ ci doy na sant yàlla waaw maa ngi a Assane sant Dramé dëkk biir si biir koñ bi fii laa dëkk kër gi laay fooye mais du yoon tamit quoi mais chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour bi oto mangal du fi mun dugg sa port mun dugg soo amee malade taxi du dugg fii xew soo amee xew doo mun baas ah suñu force yi dafay fees tepp chaque jour gars yi ñu xoolal def leen neex loolu moo dul yoon dañu sonn quoi. mën nañu situer euh, fii fii la ci ci Boucotte. fii fii biir Boucotte fii biir Boucotte fii. Guana. marché Seymour. marché Seymour Guana fii Guana la. Guana quoi mais dañu sonn quoi chaque jour chaque jour chaque jour mais xool nañu xool nañu nguur bi jàppale mu dimbale ñu. ngir yàlla quoi ñu dimbale ñu ñun amuñu nelaw bu doy amuñu dara. billahi wala chaque jour chaque jour suba ngoon suba ngoon weje weje weje weje weje dafa doy wala suñu suñu mënu jabal nañu bay stade bo xamné auto day duggu nice suñu amé mala taxi day duggu mo mo jël ma mala wala tay debi debi suba lé debi suba lé wala sabor wala sabor ba euro ñoo sabor ba euro ñoo sabor ba euro ñoo lii du yoon quoi nañu jàppale te yàlla tax. su dëgg du yoon. depuis kañ depuis kañ ñu ngi on support depuis kañ. ba 15 heures. ba heure bi ba heure bi lii lii du yoon quoi. bilaay walaay doo sonn quoi ñu bi nañu état bi jàppale état bi nañu jàppale. ñun dimbale ñu quoi te yàlla tax xoolal ñun ay nit lañu xoolal comme ñëpp comme ñëpp mais xoolal amuñu firi doom amuñu lu ñuy dundee ko amuñu man sama xol dafa fees

Euh, de magasins, de friperie à 14h15. Donc nous sommes arrivés sur les lieux à 14h20. Donc arrivés sur les lieux, nous avons constaté qu'il s'agissait d'un feu de, de magasin, de friperie. Donc avec les moyens dont on est venu avec, c'est-à-dire les deux engins pompes, un fourgon et un PS et un VIL. Donc nous, sommes parvenus à éteindre le feu. Donc euh, aucun corps sans vie a été enregistré. Et aussi, les dégâts, on peut dire que les dégâts étaient un peu importants. Donc, je vous remercie. Est-ce que vous avez eu à, des difficultés pour accéder à ce magasin Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok. Donc, je euh, suis Adama Ba. Donc, j'ai commandé 41e compagnie. Donc, nous alerté pour un lac-lac concernant un magasin de friperie au marché Boucot. Donc euh, à 14h15, donc 5 minutes, on est arrivé à 14h20. Donc, a accès sur le lieu, effectivement, c'était un feu de magasin de friperie. Donc, avec l'auto, a eu auto d'incendie, le fourgon, avec une PS, avec 4x4, Donc, avec ces moyens, nous sommes parvenus à éteindre le feu. Mais aucun corps sans vie n'a été arrêté. Et aussi, les dégâts, nous avons eu qui est le marchandise, tout waaw. non amuñu woon jafe-jafe pour dugg fay làkk bi à part que la population.